mbokk yi ba tey ñu ngi taxaw ak Ketchup euh, kenn du ko présenté ci réew mi Bousse euh, sa diggante ak Basirou Ka la ak dimanche bis doxul ci diggante bi wëllëre bi fi mu jugee loolu yëpp wax nga ñu ko tey ñu ñëw fekkaat la ci bis bi euh, ni nga ci mel ba ni nga fi nga tolloog moom ak sa diggante ak moom pour sénégalais yi ñu xamul lan la. waaw ñun moom xam nga noonu la ñuy doxee. suñu nit moom buñ la jàppee loo mën a xewle ci àdduna rek ak koo ñu mën a booleel ak ku ku mën a doon rek te sës yow rek dañ koy boole suñu bopp ndax noonu la ñuy doxee suñ la jàppee moom jàpp nañ la dañ lay jàpp ba mu sës jàpp la wone la fësal la ndax loolu moo ñu mooy mooy àdduna nit ki boo sekkee moom teraanga sekk ak moom jàmm da nga koy fësal da nga koy wone i sa waaye daanu de la ilaha illallah sa waay ngi daanu de. ah ay ah? na. ci Serigne Touba si si Serigne lay wax nii de. yaa ngi koy dégg. waaw. tubaa rek. booy wax ci moom te mu dëggu ci yow nii ngay mel da ngay bëgg a miir yeeg lu ne. waaye Basiru ko ñu ngi koy ñaanal jàmm rek di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan ndaw eh, gan gi gane si. yàlla defal ko tew tawféex defal ko jàmm ba mu gudd fan ba mel ni baayam ndax baayam moom teral na ñëpp. monsieur li ma jaaxal mooy li ñuy gis ci yow d'habitude da ngay dem ci ku mel ni sëñ Basirou Ka wala nga dem ci keneen ak keneen ak keneen ñooñu di yëkkati teraanga di la ko defal mais social bi ngay def te bëggoo ñu nit ñi di ko gis euh, wala doo ko wane lu waral loolu buñ lay jox di ko wane waaye boo koy joxee doo ko waaw parce que ñi may jox ma wane ko day baax ci ñi nga xam ne dañuy am te duñu defal nit ñi. ñoom tamit ñuy jàng ci loolu di def waaye man mi nga xam ne man maay joxe teraanga gi may jël di ko jox nit ñi ak mbir yi may def pour di ko defal nit ñi tey amaana ñooñu noonu tey bu ñu sañoon dañ ma koy defal waaye yàlla ci ñoom la ko jaarale. tey xam nga man ñi may jox man fësaluñ ko ñoom ñi may jox fësaluñ ko man maa koy fësal ndax teraanga danga koy fësal man tamit su ma joxee man du ma ko fësal. ñooñu nag buñ ko fësalee ñoom la waaye du ci man lay fëse waaw. envoyé naa la message ne la vraiment yaay gor te yaay yaay garmi yaay taalibe parce que damaa gis nga ànd ak mbay am fu ngeen dem ñu jox leen xéwal gu bari bu takku macha allah nga yëkkati xéwal gi dagg ko ci digg bi jox mbay jox ko te pourtant que foofu yow yaa ko fa yóbbu loolu lan la. ah te mbay sax da doon romb sax da doon romb woo ma ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi deux fois liberté si si daa am benn publicité bu may def mu ne ma waa kon ci ma ne ko jaar fi jaar fi rek ma def ko après ñu dem mu jaar fa bi ñu paree ñu jox ñu deux mille ma yëkkati cent jox ko. ndax loolooy àdduna xaalis du dara barke Serigne Saliou Mbacke ni ma mel nii noonu laa toll. nga boole ñoom Ka mu may ñu teere ku nekk. Uh-huh. waaw Basirou c'était la première fois ñu gisee ñun ak yow. Ah, amul solo Basirou Ka li mu yor bu leen ko def mënul dëkk ci lépp bu leen ko deful da koy defal ñeneen ñoo xam ne xaw leen man kon mu defal ko ñi nga xam ne dama leen a xam moo may ëppal njëriñ moo may ëppal solo te dina leen ko jox yéen ñëpp ndax jox na wulli boole naa ko Alaaji Mbay jox na ko. boole naa koog Lamine Lit TV jox na ko boole naa koog kii nu di tëddee Ablaye Diop benn waay jox jox na ko boole naa koog yéen boole naa kook Assane Mbaye boole naa kook ñu bari ñoo xam ne tey jarul lim te dina leen ko def yéen ñëpp ñenn ñi jot nañ ñenn ñi yéen samedi la leen wax. waaw boo leen ñëwee dina leen ko jox ndax du waxantu. waaw gis nga kilifa yi fi teew yëpp. mais boobu jëli bi bëgg naa ñu ànd. ñooy ànd incha allahu yi ñun ñooy ànd mu jox leen terrain bi jox leen seen këyit ba pare ma soog a dem incha allah jaajëf.